jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu yéen sunu mbokk auditeurs yi ak euh, sunu mbokk auditrices yi mbokk yi xam ngeen ne samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ñu daal di euh, ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu dellu am mbégte daal di dalal Pape Malick Ndao Euh, Pape Malick Ndaw nag moom mooy secrétaire général ministère bi nga xam ne moom lañu dénk lépp loo xam ne euh, jëm na ci wàllu mbay mi ak wàllum euh, équipement rural moom la ñu fas yéene seqal waxtaan Pape Malick Ndaw réew mi FM a ngi leen nuyu. jërëjëf maa ngi nuyu auditeurs yi réewu FM yëpp rawatina liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñooy kilifa réew mi FM di leen wax ne kontaan naa trop si dalal bi ngeen ma dalal tey. di ñaan rek ñëpp Sénégal yëpp déglu ñu ak euh, xel bu baax ci lii ñu war a wax ci jëm ci wàllu mbay mi ci Sénégal. jërëjëf euh, Pape Malick euh, Ndaw xam naa ne dinañu wax ci li nga xamante ni tey moom la ñu commencé nawetub nawetub ren bi ba nga xamante ni tey fi la ñu yegg jëm ci wàllum collecte gerte gi Pape Malick nawetu ren bi ni ngeen ko dooree woon jamono la joo xamante ni tey coronavirus bi euh, ma ngi woon Sénégal ñu baree bari nekkuñu woon ci seeni gox euh, te gis nañ ne ren jii euh, li nga xam ne mooy mbay mi ñu bari daal jàppuñu woon ne li li ñor ren dina ñor ni ngeen ko commencé woon ba si commencé séddale jiw weeg yooyu semence yi ndax nekkutoon loo xamante ni tey lu jafe woon la si yéen. waaw dañuy sant yàlla bu baax julli si yonent bi sallallahu di gërëm bu baax président de la république son excellence monsieur Macky Sall bi nga xam ne moom ba mu faloo ba léegi euh, dooleel mbay mi rek moo ko tax a jóg dooleel koom-koomu réew mi ah, li nga wax nag dëgg la ba ñuy dem si nawet bii nii passé xawoon na jafe jafe woon na parce que réew àddina bi yëpp dafa am lu leen tënkoon muy mbas mi coronavirus bi ba mu ñëwee ni ko yeneen réew yi defee Sénégal tamit daf ko président de la République décrété ay couvre-feu décrété état d'urgence dem beeg dikk bi arrêté nit ñi jaaxle secteur yu bëri ah taxaw liggéeyatuñ mais boobu ñu ngi woon ci noor yàlla daf ñun ñu doon préparer nawet bi ci loolu ci xarañam ak si gis-gisam ak si mbaaxaam ak yaatuwaayam président de la république jël koppar gu takku si kopparu réew mi jagleel ko mbay mi pour ñu mën a dem si nawet bi ci ko dañoo dañ ko yokkoon yokkoon nañ ko daal vraiment cinquante pour cent ak li ñu amoon daaw mooy lan euh, tegoon na ci vingt milliards donc ñi ngi amoon deux mille dix neuf deux mille vingt ba ñuy dem campagne quarante milliards mu toog yokkaat ci yeneen vingt milliards muy soixante milliards soixante milliards yooyu li ko gën a tax sax muy daf ko parce que gis na ne mbas mi mbas dugg na te si mbay mi rek lañ amoon yaakaar pour que li ñuy lekk ñu bañ ko jëggaani benn yeneen réew te loolu suñ demutoon si mbay mi ak yaakaar googu. ak li président de la république def ci mbay mi foog naa ne tey jii ak yàlla suturaal ñu foog naa tey jii dana doon demee neneen loolu moo tax ñëw def suñu tëgg le ministre de la de l' agriculture professeur Moussa Baldé tëgg programme am président validé ko jox ko koppar yi muy 60 milliards mu permettre ko mu gaaw def ay commandam ci engrais def ay commandam ci semence yàlla tamit. sutural ñu defal ñu nawet bu baax bu barke taw yu bari am solo ci réew mi yépp loolu moo tax tey jii génn nañ ci nawet bi ak yaakaar parce que am nañ ci spéculation yoo xam ne liñ ci am sax mosuñ ko woon am soo jëlee. est-ce que loolu du mbetteel ci euh, euh, la du mbetteel. wala bi li bi yokk moo tax ngeen am loolu budget lu mu yokk tax na bu baax ñun tam ñu teel a jël suñuy matukaay. teel a def suñuy wax fournisseurs yi nañ jëli engrais bi jëlee intrants yi muy semence yi teel ko mettre en place am na ci ñoo xam ne sax pour ay fournisseurs yoo xam ne bañ leen jëlee pour ñu mettre en place bu ñu yóbbu intrants yi dañ xaw a yéexamtu sax ministre bi daf leen a changé. lu tax loolu. parce que dañoo gis ne suñ yaakaaroon su ñooñu. Mhm. Euh, semence jiw bi dana yéex a yegg si baykat yi. wala engrais bi yéex a yegg. mais est-ce tamit ministère bi euh, amut ay agrément yu bari yoo xamante ni dangeen ko dangeen ngeen ko jëloon ak pression boobu noonu tamit ngeen tegoon fournisseurs yi loolu lan moo koy justifier. Euh, waaw xam nga il fallait que ñu gaaw. comme président la dafa gaaw yokkal ñu suñu budget ñu am 60 mu ne gaaw dam leen parce que yéen laa teg sama yaakaar muy mbay mi il fallait que ñun tamit dès le mois d' avril avril ñu def suñuy notification seet ñan si ñan lañ mën a compter si opérateurs yi si fournisseurs yi pour ñu yóbbul ñu suñu jiwu jënd engrais bi plat ubbi commission yi. d'accord loolu moo tax ñu amoon ah, ah. ñu am résultat yooyu. mais mais euh, yooyu nga xamante ni tey yéen da ngeen leen euh, sëkkataloon pour ñu gaaw yóbbu li nga xamante ni mooy semence yi est-ce que euh, mën nga ñëw ci qualité semence bi ngeen joxe. dëgg la xam nga qualité semence ñun wóol nañ ne parce depuis quelque temps ñi ngi liggéey ci ay programme muy programme de multiplication des semences nga xam ne dañu am ay ki kuréel yu xereñ ci defar semence defar jiw comme ISRA ñu ciy lëkkaloo aussi ak yeneen organisation professionnelle comme ay UNIS ñooñu dañuy tey day dañuy defar xeetu semence goo xam ne dañ koy saytu analyser ko génne ko mu ñu tuddee ko semence certifiée ñu jox ko ay producteurs producteurs yi multiplier ko defar ko tas ko si goxaan tey jii su ñooñ la ñuy sukkandiku pour collecter semence mën kaa defaat jiw léegi nag euh, semence boobu su demee amaat nañ beneen occasion boo xam ne baykat yi seen bopp seen kuréel yi nekk si commission yi mën na saytu qualité bi parce que tey jii damay jël dëkk bu mel nii ñu war a yóbbu wàkku nguna semence ak engrais commission bi moo koy ne commission bi kan moo ko dirigé sous préfet ba fa nekk moo koy dirigé maire bi dana ca bokk xale yi jeunes yi dañ ca bokk jigéen ñi dañ ca bokk producteur yi dañ ko suñ suñu wàccee bañ ne wàkku nguna kat lii la waroon am si semence ñu xool quantité bi ñu ne waaw moom la kant bi ñëw na naam ñu dem ci qualité bi xool leen qualité bi ndax semence bi baax na ndax jiw bu baax na su baaxul am nañ possibilité retour ñëwaat ko ne ah ministre kat ki ñu boole indil semence bu baax mais suñu waxee ne qualité bu baax na rek ñun dañ leen di jox confiance donc ñun yaakaaroon nañ ne te loolu moo am semence yi nga ñu yóbbu woon ak engrais yi ñu yóbbu yëpp teel na dem te nekkoon na qualité aussi. mais est-ce que mën nga ñëw tamit ci euh, transparence bu dee am na transparence maanaam ñi nga xam ne ñoo si waroon a jot euh, ñoom ñoo si jot. am na bu baax transparence parce que li ma lay wax mooy gox-goxaat yi euh, préfet yi sous-préfet ak gouverneur yi ñoom ñooy diriger commission yooyu mois d'avril fu avril jotee début avril ministre commencé na def benn circulaire envoyé ko gouverneur de régions yi ne leen commission régional nii lay tëddee ñii ñooy membre yi ñii mooy seen mission nii la ñuy taxawee commission départementale préfet moo koy diriger élus yi ci lañ bokk c'est-à-dire maire yeeg président conseil départemental yi donc jeunes yi ci lañ bokk jigéen ñi ci lañ bokk producteurs yi commerçant fal wa fal na boo nekk rek am na ay représentants ñooñu tey jii jàpp nañ ne ñi ñu waroon a bokk ci commission bi yëpp ci lañ bokk lenn loo xam ne dañ leen ko imposer mais. élu yi nga xam ne sax dañu am ay ndomba tànk ci kaw nekk député wala nga nekk président conseil départemental wala nga nekk conseil de la république wala nga nekk conseil économique social ñooñ tamit sa gox bi nga nekk da nga fay représenter da ngay nekk ci ci commission ba donc commission bi ñooy wàcce jiw yi wàcce engrais bi seytu ko seet aussi nuñ koy séddalee par gox goxaat donc loolu ñoom lañ ko cëralee donc tey jii jàpp nañ ne am na transparence bu mat sëkk boo xam ne am na si doxalinu commission yooyu. Ah, jërëjëf euh, Pape Malick euh, Ndaw mbokk yi ñu fàttali ne moom mooy secrétaire généralu ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi ak wàllum équipement rural te professeur Moussa Baldé jiite ko bala ñoo ñëw ci euh, campagne yu ren bi ak li ñu collecté il faut ñu wax tamit ñoom ni ñu joxe woon li nga xam ne mooy semence yi léegi nag ñu ñëw ci wàllum équipement rural maanaam li nga xam ne tey mooy matériel agricole bi yéen. Euh, comme yokk nañ li nga xamante ni tey moom mooy seen budget ren ji matériel agricole bi yan jéego ngeen ci def ban taxawaay ngeen def ci lu jëm ci wàllu matériel agricole ndax boo amee gerte wala nga am ñebbe te amoo matériel agricole bu baax euh, du mën a sotti. Euh, matériel agricole bi dama la ko fàtte woon wax sax parce que campagne agricole moom fànn yëpp la fànn yu bëri la am na jiwu mooy semence am engrais hmm, intrant la mais aussi. am na taw bi comme li ñu wax yàlla moo ñu koy jox mais aussi am na matériel agricole te daaw ba ñuy dem yàlla def na jënd nañ ay tracteurs yu mat matul bëriwul nag naam parce que ba léegi matériel agricole du mat mais liñ ci def li ci gouvernement bi def depuis 2012 ba 2020 gis nañ ne am na ay jéego yu mat sëkk ëpp na 2000 tracteurs yoo xam ne dugal nañ ko si monde rural bi daaw bii passé ba ñuy dem. nawet président de la république moom tamit ci mbaaxam jël na may gratuitement ay jigéen ak ay xale ci ay matériel yoo xam ne dañ ko jagleel mbayum ndër mi ak mbayum kii bi muy ay moto motopompe muy ay faucheuse ak yeneen yoo xam ne jënd nañ ko jox ko gratuitement jigéen ñi ay gox goxaat tey jii soo demee Kédougou am nañ matériel yoo xam ne président ma leen ko ci moom la ñuy góobee ceeb bi nga dem Kolda nga dem maatam et cetera donc loolu doyul euh, si mbas ba mbas mi duggee ba ñu xamee na main d'œuvre day manqué c'est-à-dire nit ñi ñi ngi woon Dakar ñi nekkoon ñi si yeneen si dëkk yi mënuñoo dellu seen dëkk pour bi mbayum euh, vallée bi wala si anambe bi aussi jël nañ ci koppar bu takku muy un milliard deux cent jënd ci ay moissonneuse ay batteuse pour remplacer nit ñoo ñi nga xam ne ñoo waroon a góob ceeb bi si si vallée bi loolu tamit balaa ñu doon dugg si nawet bi lañ ko si contre saison bi passé lañ ko def am na ci xaalis bu takk aussi lu toll nii encore un milliard yoo xam ne dugalaat nañ ko si agriculture pour ñu jënd ci ay matériel phytosanitaire xeex ak picc yeeg janax yi nga xam ne ñu ngi woon fële si si si vallée bi donc loolu ay jumtukaay yu ñu def la ah te mën naa wax ne tamit matériel agricole bi day gën di yokk parce que ren tamit foog naa dinañ ci ñëw léegi. balaa ñuy demaat campagne am na loo xam ne ah signé nañ ko ak DER mooy délégation entrepreneuriat rapide. Mm-hmm. donc lu toll nii cent tracteurs yoo xam ne. dañ koy jagleel aussi monde rural bi mais dañ koy jaarale ci banque agricole nga xam ne mooy suñu banque partenaire pour que ñi nga xam ne ñoo bénéficier wu sans tracteurs yi ñu am fuñ jaar ak banque bi jaar fa ak DER ñu mën a am ñoom tamit seen i tracteurs. d'accord euh, Pape euh, Ndaw léegi benn laaj rek ñu doog ñëw nag euh, ci ci nawetu ren bi ginnaaw bi gerte gi ñore ak yeneen kii yi léegi yéen ministère bii nga xamante ni tey moom ngeen yor. soo xoolee dafa mel ni mooy ministère bi Sénégal gi yëpp euh, wékk seen yaakaar ji ndax même président Macky Sall euh, declaration yi muy def yëpp day mel ni daal maanaam relance suñu relance économique bi ci ministère de l' agriculture la ko la la ko bëgg a ko bëgg a euh, wékku beneen bi tamit ñu bari dañuy wax ne li dal Sénégal dal yeneen réew ci coronavirus ba kenn ku nekk tal sa bopp Sénégal war nañoo góor góorlu ba nga xam ne lépp lu ñuy dundee rek maanaam fii ci réew mi lay lay jugee yéen. Euh, est-ce que loolu du sas boo xamante ni tey sas bu diis la si ak nan ngeen di fexe ba yaakaar ji ñu am ci relance économique bi ngeen relever défi bi ak sénégalais yi nga xamante ni jàpp nañ ne bu ñu jógee ci mbirum coronavirus wàllum euh, dund moom euh, fii lay ñore ci réew mi. dëgg la yaakaar gi rëy na attente bi tamit yaatu na trop mais foog naa ne am nañ ku ñu jara gunge koo xam ne mi ngi ñuy gunge muy président de la république parce que xam na ne mbay mi. si moom lañ mën a sukkandiku pour mën a bañ a nërmeelu pour économie bañ a pour jóg bi gën a mën a yomb xam na ko parce que ba mu lancé lu ñuy wax PAP 2A programme euh, action prioritaire accélérée et ajustée fii si jam ñaajo ba mu ko lancé ba adopté document bi si biir document PAP de a boobu yeneen secteurs yi dañ ci am solo mais secteur mbay mi vraiment am na ci solo trop mu sasoon ñu ne daal vraiment suñu yaakaaree si mbay mi yaakaar si production bi danañ tax suñu économie du nërmeelu loolu moo tax production yi ñu am ren si gerte gi si dugub bi si mboq mi si ñebe bi tax na ba yegguñ euh, zéro sero pour cent amuñ récession donc ñu ngi toll si taux à 1,5 pour cent donc loolu mbay mee tax moo tax Sénégal wàccul économie bi nërmeluwul mais ñi ngi dëgëraat tant que euh, mbay mi mi ngi fi tànk président mi ngi ñuy jàppale. loolu moo gën a tax tamit comme li nga wax dëgg la PAP 2A boobu mbay mi da ci am jéego bu am solo bu mu ci taxawee ak bu mu ci war a taxaw parce que PAP 2A bi 2021 2023 la trois ans mu permettre ñu ñun si ñu tëgg suñu benn programme ñu tuddee ko programme agricole donc articuler ko si PAP 2A. programme boobu professeur Moussa Bal ak ay techniciens am ñi ngi koy liggéey président de la république validé na ko programme bi mi ngi tudd programme agricole de souveraineté alimentaire pour l'émergence programme boobu nag lu tax mu war a jàppale réew mi ba suñ économie du narumir lu mooy si soo jëlee ceeb bi nga xam ne moom la ñuy dundee fii programme boobu def ne damay tëggaat lu ñuy wax PNAR programme d'autosuffisance nationale alimentaire en riz d'autosuffisance en riz programme national d'autosuffisance en riz PNAR boobu donc si PRACAS 1 bii passé dañu waroon a atteindre objectif mais jotuñ ko atteindre en 2017 ñu permettre ñu nag ren ñu jëm cee demaat ba 2023 avec un objectif boo xam ne de 1 million 900 mille tonnes lañu soxla si PNAR boobu foog naa ne progr projet yi ñu am. yi nekk ci vallée bi nekk Anambé nekk ci yeneen région yi di def euh, nekk ci euh, ceeb bi suñ leen dooleelee plus secteur privé bi ñëw ñu gën a lëkkaloo PANAR 2023 boobu secteur privé bi ci nan la ci dugalee loxo secteur privé bi dafa am loo xam ne su ko état bi fu mu mën a yem dañuy oo secteur privé bi ñu jàppale ñu ci aménagement yi parce que PANAR boobu ma lay wax noonu ñett volet daal lañ xalaat ne moo ko mën a téye pendant 2023 boobu. Ah, mooy ah, ah. maîtrise de l'eau il faut ñu mën a am ndox mu baax ndox mu bëri pour mën a dem si gàncax gi mën a ñoral gaaw euh, ñu mën a bay ceeb noor ak nawet te loolu du état rek am na ci entreprise secteur privé yoo xam ne mën nañ def appel si ñoom ñu jàppale ñu si matériel ñu ñëw lëkkaloog ñoom pour mën a am maîtrise de l'eau beneen volet bi mooy lan mooy gestion des terres durable loolu mooy aussi suuf si il faut aussi ñu mën ko tàggataat mën ko defaraat ba nga xam ne lépp luñ ko jox mun ñu ko delloowaat beneen volet panaar bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a sukkandi encore moom mooy secteur privé bi wax naa ko léegi donc maîtrise de l'eau euh, gestion durable des terres et l'apport du secteur privé ñett ñooñu daal foog nañ ne suñ ko articuler mbayum ceeb boobu mën nañ ko def noor daf ko nawet si gox yépp si Sénégal parce que gis nañ ni ceeb bi léegi dañ koy bay en plateau di ko bay aussi en en kii en en irrigué irrigué mooy li ñuy yóbbu si vallée bi ak Anambé fleuve bi mais aussi da taw bi aussi mën nañ ko bay en plateau comme nu ñuy bayee dugub comme nu ñuy bayee gerte. d'accord léegi euh, Pape Malick euh, Ndao euh, li nga xamante ni tey yaa ngi wax sànq secteur privé bi. Euh, am na benn bànqaas boo xamante ni ministère de l' agriculture moo ko coiffé muy horticulture culture nag euh, fiñ ko li muy ñor ci réew mi amaana bëri na waaye tamit euh, am na benn inter professionnel ñu yëngatu ci wàllum soble am na ko tudd Ali ku nekk Thiès moom ŋàññi na bu baax a baax docteur Macoumba Diouf mi nga xam ne moom moo jiite horticulture ŋàññi na ko te yéen yéen yéen yéenay patron da nga may may sax parce que yow dafa mel nii sax da xam suñu ministère bi da nga may may ma rebondir foofu parce que waxoon naa ne si PAP 2A bi wàllu agriculture ñett programme yu baax lañ ci am la ci mi la ci gouvernement bi du séntu te ñu tëgg ko pare mooy PANAR 2023 bi wax naa ko léegi mais mooy aussi programme national de développement de l'horticulture mmh. ñu tuddee ko PNDH loolu lu tax ñu kii ko moom ak beneen programme bu ñu dee programme national de développement des céréales donc ñett programme yooyu ñun mooy suñ programme agricole boo xam ne moom lañ articulé ci PAP 2A je reprends mooy PNAR 2023 programme national de développement de culture ak programme national de développement des céréales ñetti ñooñu dañ ne fu ceeb bi mënta yegg pour souveraineté alimentaire c'est-à-dire li ñuy bay ñu ko dundee dootuñ jëggaani bay mën a yóbbu su fekkee amuñ ko ci ceeb bi luy des ñu complété ko ci horticulture bi ba pare complété ko ci ay yeneen céréales yi comme dugub comme mboq comme ñebbe comme leneen donc ñett programme yooyu soo ko combiné fii ak 2023 suñ ci yéegee jàmm ak salaam foog nañ na Sénégal dana mën a am souveraineté alimentaire te souveraineté alimentaire du ceeb rek. Mm. donc mën nañoo lekk ñebe mën nañ bay euh, dugub bi mboq mi loolu yëpp mën nañ ko def ay jumtukaay yoo xam ne mën nga cee feetal sa biir. mën na nekk transformation mën na nekk transformation sàlleen yi jëfandikoo ko lekk ci jaay ci denc ci. Mm. donc loolu moo tax ñu ne daal souveraineté alimentaire boobu si ñett fànn yooyu daal lañ ko buggee am. horticulture bi bi nag li nga wax dëgg la. ñi ngi ciy liggéey te foog naa ne programme national de développement de l'horticulture boobu dana ñëw pour saafara lu bëri. man la may ñaan sama mbokk yooyu rek bu ñu ŋàññi docteur Macoumba docteur Macoumba Diouf ñëpp xam nañ ne docteur bu xereñ la mës na nekk DG ISRA am na xam-xam bi am na xarañte bi am na Pastef bi te li ko président gis tànn ko ba defoon ko DG ISRA tànnaat ko def ko directeur culture si ndigalul si si si si si jàppaleel ministre de l'agriculture loolu lañ gis fii ba léegi mi ngi xar tànk tubayam ah, mais ñoo ngi jàmbat eh, mais mais euh, mi ngi dem si Pape Malick Ndao euh, ñaay bi waaw Pape xam nga ma ngi dem si ñaay bi dem si ñaay bi ku ne mën na ko def mais dama ne ñi nga xam ne tey ñooy bay mbayum noor ñu bay soble euh, carotte njàmbi nawe ak euh, soble yooyu noonu euh, ba ci pomme de terre dañuy faral di wax ne ñoom euh, non seulement sax nee nañ chiffres yi nga xamante ni moom la directeur horticulture di wax chiffres ñoom lañ koy contesté beneen bi nee nañu ay chambre froide ay infrastructure de conservation. lu des la aussi loolu. loo ci laa bëggoon a ñëw. loolu moo tax ma ne la docteur Macoumba bokk na Macoumba Diouf si ñi nga xam ne xalaatal nañ. ministre parce que conseiller la fii directeur la day conseil ministre bi pour ñu taxawal li ñuy wax programme national de développement de l'horticulture loolu dafa am lu muy firnde programme boobu su ñëwee non seulement danañ bay noor ak nawet donc wàllu légume jooju ngay wax ak fruits yi mu horticulture mais aussi danay tabax ay chambre froide de conservation loolu moo tax a jóg programme boobu programme boobu dana wër fépp fu Sénégal du si ñaay bi rek fépp fu Sénégal ñoo xam ne dañuy bay bayum ndër ñu jàppale leen donc tey jii suñ bayee am fuñ ko denc ba nga xam ne su marché bu feesee danañ ko mën a denc su marché bi ñàkkee ñu génnewaat jaay programme boobu dana tabax ay chambre froide dana tabax ay con de conservation te loolu doyul am na ay projet yoo xam ne ñi ngi fii ci biir ministère de l'agriculture et de rural benn bi nga xam ne bi ma rek mooy Piazan Piazan mooy projet d'intensification écosoutenable dans la zone des Niayes boobu Niayes bee ko tax a jóg mbayum ndër ko tax a jóg ministre bi lancé na ko bërki de moo njaay fii si Diamniadio ah plus de 6 milliards la pendant trois ans donc partenaires italiens yi lañ ci am ñoom aussi dañuy jàppale ñiy bay si ñaay bi muy région Dakar région Louga région Thiès ak région Saint-Louis jàppale leen bañ mën a yokk seen koom tabaxal leen ay chambre froide fekki toujours le programme national développement de l'autocueillette. d'accord euh, Pape Malick loolu bu ngeen ko defee euh, dina solo ndax ministre bi sax euh, ci ñooraw doon na wax producteur yi ngir ñu jëm ci wàllum agro business ak nan ngeen di fexe wax ak ndaw ñi ba ndaw ñi gëm mbay mi nga xam ne mooy mbayum norme ak yooyu léegi mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité Pape Malick Ndao moom mooy secrétaire général bu ministère de l'agriculture de l'équipement rural di ministère bi nga xam ne professeur Moussa nag euh, Pape Malick Ndaw ñu ñëw nag euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, Ali Kalaj ndax ren dañoo bëgg a xam ñaata ngeen collecté dajaleegun ci ci ci gerte ñaata ngeen dajale ci gerte Euh, loolu lañ bëgg a wax ak tey bu dee tamit am na ay jafe-jafe euh, ndax ñàkkul ne am na jafe-jafe sax. Mm. ndax yéen chinois yi sax ah, en de gisoon naa fi chinois yi sonon sonaloon nañ leen fi xawma ma lu ci mujj am daal euh, bëgg nañu ci waxtaan léegi yéen. Mm. campagne ren bi bi ngeen joxee jiw ba affaire bi ñor ba pare mm. dajale gerte gi. ban taxawaay ngeen si am ak ban explication nga ñuy jox ak ñaata ngeen collecté. waaw foofu danaa ci sawar trop ci joxe ci ay chiffres mais di lalu rek si li nga xam ne professeur Moussa Baldé yàgg na ko wax te mi ngi koy wax tamit si télé yeeg rajo yi ñu koy invité euh, bañ yàlla defee ñu dem si nawet ñu génn ci nawet nawet bi baax donc suñu service yi prévision yi ñu defoon mooy te moo am ba léegi mooy gerte gi donc récolté nañ ci un million huit cent mille tonnes. si gerte googu nag ñu dem campagne léegi dañuy rappeler avant ñuy dem campagne campagne bii passé buy collecte bi dañu demoon ba nga xam ne dañ dem ba ci digg ba le professeur Moussa Baldé si comité bi nga xam ne mooy saytu campagne de commercialisation digaloon ko wala xelal ko ñu tëj tuuti exportation graine yi nga xam ne mooy dem Chine parce que dañ doon ragal ñu exporter lu bëri ba exporter waale suñu semence te duñu am semence boobu ñu ngi ko tëjoon mois de mai deux mille euh, mois d' mois de mai deux mille vingt bañ ko tëjee ubbi wuñ ko ba nawet jot ba nawet passé ba campagne bi collect commencé ba tout récemment la ñuy doog ubbiwaat donc permettre ñi nga xam ne dañuy exporter gerte ñu exporter mais. boobu daa fekk ngeen jënd loolu moo tax ren vraiment campagne njënd ak njaayum gerte gi mi ngi commencé. mi ngi commencé. en 2000 mi ngi commencé au mois de euh, au mois de novembre 23 novembre 2020 la ñu ubbi campagne bi bañ ko ubbee def nañ ay ñaari weer ñetti weer doo ko mën a tijji campagne exportation parce que dañu bëggoon suñu huiliers yi nga xam ne fi nekk fii Sénégal comme Sonacos jënd lu mat. donc ñun mu ñun tamit ñu mën a collecter ay semences nga xam ne mooy doon jiw balaa ñuy jël jiw bi yëpp di foog nit ñi naan yóbbu nañ ko bitim réew et cetera loolu moo tax tey jii sawar naa ci trop depuis le 23 novembre bañ ko tijjee. ñaata ngeen doon jëndee yéen. Hmm? ñaata ngeen jëndee. waaw de ñun jëndee bi xam nga campagne soo fay dem. da ngay discuter waa Sénat ñooy organiser réunion. def seen réunion. ne bëgg waaw proposer prix. prix boobu ñu yóbbu ko à la au président président valide ko en conseil li président valide woon ren mooy prix plancher mooy deux cent cinquante francs le kilo. deux cent cinquante francs mooy mënta gën a yées deux cent cinquante mën na ko weesu nag baykat mën na jaay. 250 ba 300 ba 300 et quelque mais kenn warul mën a ñëw jëndee ko moins de moins de 250 loolu moo nekkoon prix plancher léegi nag Ah, bañ avant ñuy kubbi kubbi campagne gi am na ci baykat yoo xam ne xam naa ne soxla nañ dem nañ jaay seen gerte am ñoo xam jaay nañ ba 300 ah, trois cent cinquante loolu yëpp am na ci mais. mais amu leen woon problème pour jënd yéen. non ñun du ñu ñun du ñu jënd ay opérateur ñooy dem collecté ñoo jënd opérateurs yi collecté nañ si opérateurs yi collecté nañ jënd nañ jënd nañ il n'est pas dit que nag 250 lañ jëndee donc li loi marché bi wax loolu lañ jëndee mën nañ ñëw si benn marché benn point de collecte ñu ne ah fii de dëkk bi ñun 300 la ñuy jaayee mais su le suñu oppose fekkee ne jaral na leen ko ñu jënd seen 300 mais lan moo nekkoon différence bi chinois bi jënd ko ak ñun suñu opérateur yi waaw mais xam ndax daa am ñu doon wax ne tey par exemple tey ñun bu dee euh, opérateurs yi nekk fii euh, ñoom ñoo lay euh, indil li nga ñoo lay kiyal gerte gi hmm. ñooy ñëw ba si yow Euh, jël ko. amoon na benn différence daal bu ñu doon wax. chinois yi oo man xawma ma différence bi ci nekk mais daal li ci mën a am daal mooy chinois bi su jëndee day exporté. waaw day xool li te opérateur bi su jënnee collect la day jënd ñëw jaayaat nguur gi donc ay semence lay doon ñu mën ko utiliser waat fii si réew mi wala. Euh, Sonacos ñëw jënnee ci opérateur bi yóbbu ci usine transformé mu dundal suñu économie bi donc ñaar yooyu ñoo am donc pour campagne de collecte bi ñaari fànn la moom laa la bëggoon ñëw ah, dafa am fànn boo xam ne mooy semence yi cest à ñi nga xam ne defoon nañ multiplication bay ko jox ay baykat baykat di jënd ko jaay ko dañuy dem jënnaat ko ci baykat yi hmm. suñ ñëwee aussi état bi dafa ñoom contrat ñu jaayawaat état bi loolu mooy collecte pour les semences hmm. muy semence certifiée hmm. mu am beneen fànn boo xam ne nag donc huiliers yi la soxal du Sonacos rek Sonacos lañ ci gën a ràññee parce que mooy société nationale. Mhm. Sonacos tim day dem jënd. pour mën a transformer déwlin ak leneen pour mën a doxalal économie réew mi donc ñaar fànn yooyu moo am si si collecte bi mën naa wax ne bañ commencé le 23 novembre ubbi ko ba léegi au 126e jour su campagne de commercial mooy bu mu amee téeméeri fan ak ñaar fukk ak juróom benn mhm. volume bi nga xam ne collecté nañ ko yeggoon na ci 654 307 tonnes contre soo jëlee daaw si même période bi contre 473 892 tonnes. donc xam nga ne ren moo ëpp gum fuuf li ñu li ñu collecté gum. Mm-hmm. li ñu collecté toll na ci 654 000 tonnes. Mm-hmm. alors que daaw ci même heure bi ñu ngi tolloon ci 473 000. très bien tonnes 200 000. ci 654 mille tonnes yooyu. mooy li ma lay wax dafa am ay semence li ñu tuddee semence certifiée waaw semence yooyu volume bi li liñ ci am si 654 man waaw pour waajal am nañ ci 105 933 tonnes alors que déwén si même heure boobu 79 000 la woon ren ñu ngi toll si 105 933 mille 933 presque 106 000 tonnes ci semence certifiée te semence certifiée boobu xamul lu luñ ci soxla woon. lu nekkoon suñu besoin ñun. pour dem campagne soixante mille tonnes. moom ngeen moom ngeen xalaat. moom lañ doon xalaat. te semence certifiée bi pour waajal nawet bi gerte yegg nañ ci cent cinq mille neuf cent trente trois. te ñaata ngeen ñu liñ jàppoon ne suñu amoon soixante mille tonnes rek. mën nañoo dem campagne yegg nañ ci cent cinq mille. te man na ko ëpp wala. te dina ko ëpp parce maa ngi continuer ba léegi ah. campagne ba contre daaw si heure bi si semence certifiée ñi ngi tolloon si 94 000 tonnes. ren ñi ngi toll si 105 000 tonnes semence nii yéen am na lu bari lu ngeen ci collecte est-ce que huiliers yi dinañu mën a euh, def seen liggéey correctement ñoom tamit. waaw déglu ma xam nga loolu laa wax si semence certifiée ñi ngi toll si 105 000 tonnes 933 maintenant huiliers yi si 654 000 yooyu tonnes yooyu huiliers yi collecté nañ. si euh, semaine bi passé ma lay wax si 126 jours yi collecté nañ lu toll si 96 mille 23 mille 23 tonnes 96 mille tonnes lii ñoo ko collecté kon si 96 mille yooyu Sonacos am na ci 67 mille tonnes si semaine bi passé Copéol am ci 18 mille 686 tonnes waaw am ci 3 mille 634 tonnes SSII am ci 6 mille deux 200 donc sonakos daaw. Mhm. ñëpp dégg nañ DG Sonacos bi ak ñeen ñëpp di wax ne daaw liñ liñ def baaxul liñ collecte baaxul parce que euh, ñi ngi amoon rek vingt huit mille tonnes. est-ce que dafa amutoon xaalis. ah euh, peut-être que amuñoon daal gerte. xamuñ nag euh, mais xaalis moom foog naa ne dégg ngeen DG Sonacos ne moom xaalis moom terewu leen woon a collecté waaw amoon nañ xaalis donc ren ñu ngi tolloon ci semaine bi passé mille tonnes alors que daaw. ñu ngi tolloon si vingt six mill ton rek. d'accord mais Pape Malick euh, ndaw li ngeen collecté nii mais est-ce que tamit baykat yi ñoom euh, nootoo leen leen maanaam est que ñoom kontaan nañu si aussi ñoom ci ci ci nawet bi damay bañ rek yéen ngeen kontaan am ngeen seen semence certifiée euh, huiliers yi am na la ñuy collecté. baykat bi nag moom sonn si. baykat bi nag moom foog naa ne tey jii dama lay défier soo demoon Saalum dem Siin dem fu nekk laaj leen ndax kontaan nañ danañ la wax waaw parce jaay nañ seen gerte niñ ko buggee kenn imposé wu leen prix am na ñoo xam ne jaay nañ sax prix boo xam ne dépassé na fuuf prix plancher bi que baykat bi que état jënd ko coopérateur jënd ko wala Sonacos jën ko donc tey baykat yi li ñu gënoon soxal ñun mooy baykat bi kontaan na te xam nañ ne kontaan te exprimer na ko donc tey jii jaay nañ seen gerte ñii jaay nañ ñii denc nañ jiwu mais. ñun tamit daal daf ñu doon wóor ne tey jii su ñuy dem campagne am nañ jiw boo xam ne tey war nañ ko mën a joxaat baykat mu nekk jiw buñ certifié maintenant loolu moo tax man la collecte bi ñaari fànn la dafa am euh, semence am huilerie ñett la sax am huilerie am exportation maintenant exportation bi tey jii si datu semaine bi passé ñu ngi toll si deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante-sept tonnes décortiquées donc décortiqué bi nag su fekkee ne léegi si coque nga ko transformé parce que dafa am benn calcul booy def. yóbbu ko si coque war na toll si 452 000 tonnes. donc vraiment loolu aussi dépassé na loin li ñu amoon daaw parce que daaw dañoo tëjoon campagne export bi. Ah. bañ koy tëj ñi ngi toll si cinquante 355 000 ren ñi ngi toll si 452 000 yi nga xam ne moom lañ exporté gum bitim réew. semence yi toll si 105 933 tonnes. et euh, lépp lépp toll ci 654 307 tonnes ci semaine bi passé campagne bi nag mu ngi wéy donc semaine bu nekk dañuy def suñu euh, statistique jox suñu rapport ministre bi mën ko yóbbu conseil liiral ko njiitu réew mi donc ñu adopté ko. d'accord léegi euh, lu jëm ci wàllum yeneen yi bu bokkut ak gerte ay ñebeek yu mel noonu. waaw pour yeneen sem yeneen spéculation yi. mën naa wax par exemple si wàllum céréale céréale xayma biñ xayma woon mooy yegg na trois millions huit cent mille tonnes céréales suñu céréale nag à part le riz. Mhm. à part ceeb bi mooy dugub mboq ñebbe sorgho donc vraiment ren def nañ ci lu am jéego yi am solo am nañ ci trois millions huit cent mille tonnes yoo xam ne récolté nañ ko si xeetu dugub mboq et cetera soo jëlee. Euh, par exemple hmm, ceeb bi ren ñu ngi toll si un million quatre cent mille un million cent mille tonnes vraiment si ceeb aussi donc am na jéego yu bëri aussi def nañ ko aussi si wàllu ceeb bi donc loolu day wane ne rek comme ministre ni mu ko waxee woon ni mu koy waxee si tasxat devant tasxat xibaar yi spéculation boo jël tey jii euh, même su ma amul yi exact yëpp yëpp a yokk d'accord mais yëpp yokk par rapport à ah, l'année. mais mais Pape euh, euh, yi nga xam ne tey ministère bi moo ngi koy joxe am na ñoo xamante ni ñoo ngi koy contesté. waaw loolu tontu lu tontu lu ministre bi tontu woon laa leen di wax ñun dañu am suñuy technicien yoo xam ne ay spécialiste lañ ay docteur lañ ci si liñ nekk ay statisticien lañ am direction boo xam ne moom la ñu tuddee DAPSA la direction de l'analyse des prévision de statistiques agricole muy xayma di def ay enquêtes di dem si biir réew mi. di xool lan lañ fa jii ñaata la joxe nangam nangam donc am aussi direction bu ci direction la de de l' agriculture buy dem si si si si si gox goxaat amaat aussi li ñuy wax cellule logistique boo xam ne mooy dem xayma donc loolu yëpp daal. donc jàpp nañ ne ñun chiffres yi ñuy joxe nii ay chiffres yu baax la. d'accord jërëjëf euh, Pape Malick Ndao xam nga euh, mercredi 10 euh, mars 2021 ci am na benn conseil des ministres mercredi 10 mars la woon boobu président Macky Sall waxoon na si commercialisation arachidière bi jamono jooju nag xam naa ne lim bi yokku na ndax 10 mars la 10 mars la woon booba yéen a ngi woon ci 564 451 tonnes ci 98 jours. Euh, montant bi nga xam ne moom lañ dugal ci wàllum euh, mbay mi monde rural bi euh, liñ ci injecté toll na ci cent soixante dix milliards. léegi li nga xamante ni nag moom mooy Ali Kalaje tamit ci biir ministère bi. Mm-hmm. ministère bi nga xamante ni tey moom ngeen moom ngeen nekk. dafa am ay travailleurs yu fi nekk. Mm-hmm. yoo xamante ni ñoom fan yële jàll def nañ benn toogaanu ñaxtu amal nañ benn grève 72 heures nee nañ ñoom dinañu boycotter li nga xamante ni tey moom mooy campagne bee di ñu ndax campagne bee di ñu mën nañu ne euh, mën nañu ne léegi tey mu commencé wala commencé na te résultat yi maanaam ñoom yi nga xam ne mooy euh, information yi dañ koy retenir duñ leen ko jox euh, lan moo waral grève boobu. waaw grève bii lu ko waral mooy mënoon na ñàkk sax gaa. lu tax mënoon na ñàkk parce que waxtaan am na. xam nga su fekkoon waxtaan amul dañu leen a fullalul wala faalewuñ leen ñu mën a wax mais le ministre pour professeur Moussa Baldé bañ commencé di wax di bind en deux mille vingt janvier ci leen leen ne kaay leen ñu waxtaan mu ñëw indi leen bureau waxtaan ak ñoom indiwaat leen biroom waxtaan ak ñoom indiwaat leen def na xaw invité na leen ñetti yoon te lépp su koy def day oo ay collaborateur man ay directeurs yi conseil technique ñu toog ñu déglu leen bañ waxee début premier jour bi mu leen di invité bi mu leen di recevoir dañ na ko monsieur le ministre ñun dañ nekk ci corps boo xam ne muy ingénieur agronome ak euh, les ITA mooy technicien agricole vraiment am na indemnité yoo xam ne suñ naataango yi dañ ko am ñeneen naataango yi nekk ci yeneen corps yi yeneen ministère am nañ ko te ñun amuñ ko muy indemnité de logement indemnité de responsabilité indemnité de risque et tout ça ministre na leen daal su fekkee ne daal loolu da ngeen ko waroon am te amu leen ko te ngeen convaincre ma jox ma luy firnde ne vraiment mën naa ko défendre danaa leen ci jàppale du man nag maay joxe indemnité parce que du ma ministre des finances du ma président la république mais mën naa ko wax fi ma ko war a waxee loolu la dox ñu ñëwaat fi encore waaw très bien jéego bi mu fi njëkk a def mooy mu ne leen pour ma firndeel leen ne mën naa ci jàpp te dinaa ci jàpp damay créer benn comité nga xam ne maa ko war a présider mais dama koy teg sama loxo secrétaire général comité de promotion euh, de dialogue social nga xam ne comité boobu lépp luy syndicat ci biir ministère bi da ci bokk du SYNTAS rek mooy syndicat am na yeneen syndicat de ci biir DPV direction de la protection des végétaux si am na syndicat la waa ANCAR am nañ syndicat ISRA am nañ syndicat am na beneen syndicat ba am doole oui am na beneen syndicat boo xam ne aussi ñu tuddee SDTS syndicat démocrate des travailleurs du Sénégal ñu sax ñoo jiitu Sintas ñooñu li Sintas daf nii sax ñoom ñoo ko ñoo ko liggéeyoon te waa Sintas ñi ngi may dégg duñ ko weddi ñoo defaroon seen i cahier de doléance def ci seen lépp 2007 2008 ba 2011 waaw loolu la ñu reprendre at presque léegi ministre créé leen arrêté boobu créé leen comité bi kuréel bi di réunir. ah ministère bi ñëw fekk ñu koy xeex. Euh, oui professeur Moussa Baldé. oui dafa ñëw ci ministère de l'agriculture fekk fi njàmbat yooyu. très bien fekk fi njàmbat yooyu du njàmbat boo xam ne commencé na léegi de. ok bu commencé ay at depuis les années 2000 nit ñi ñoom ñu ngi koy wax. ba 2011 sax damoon nañ ba koy am d'après SDTS li mu wax suñu réunion yi nee na ba 2011 damoon nañ ba koy am après mu am changement de gouvernement nangam. Hmm. maintenant nag Sintas mii nga xam ne euh, tey jii ñooy dem grève. répétitive di ko wéyal di ko wéyal di def sitting ak loolu yëpp ñoom defuñ lu du dañoo reprendre at li nga xam ne SDTS moo ko tëggoon ba pare te dem nañ ba ci am kii moo tax ñun bañ ko xamee ñu def benn comité boo xam ne ñoom ñëpp la ñuy boole nag ci biir kuréel gi. Mm-hmm. du ñoom rek ñoo fa nekk. Mm-hmm. lii ñu réclamer du ñoom rek. ñu boole leen ñu ñëw di discuter. ñu jàppale leen suñu ministère jàppale leen suma technicien jàppale leen DAGE beeg bureau ressources humaines ba tëggal leen benn cahier boo xam ne. Mm-hmm. indemnité bu nekk danañ wax lu tax ñu bëgg kaa am ak ñaata lañ fa proposé. tey jooju loolu suñ dernière rencontre bi nga xam ne defoon nañ ko au mois de novembre décembre tëgg nañ kaye bi def nañ ko document bu yees. ministre bi xool na ko ba yónnee na ko le ministère des finances. donc loolu jéego yu mat la créé na cadre déglu na leen jàppal na leen ñu am. ñu am document bi am nañ ko léegi ñoom. li ñuy wax mooy lu tax ñu leen di déglu lu tax ñu leen di ñu ñu leen di tànqamlu te ñun tànqamlu ñaan am nañu information. procédure la procédure la. fi nekk nii loolu ma lay wax nii mi ngi ci circuit bi li ñu wax mi ngi ci circuit. administratif ñoom a bloqué ci seen liggéey. bon dañuy wax ne dañ koy bloqué mais ñun euh, ñi ngi leen di ñaan d'abord ñu ñëw liggéey ci ah ñi ngi leen ñaan ñëw liggéey ci déjà. Hmm. amuñ sañ-sañ bi parce que ay travailleurs lañ. mais est-ce que biñ defee ne dañuy dem grève dugal nañ préavis de grève je pense. ah préavis bi de ñun ñëpp ñëwul si ñun. yëgu leen ko yëguñ ko. sitting bi nga xam ne def nañ ko tamit déposé nañ benn déclaration au niveau du préfet de département de Rufisque préfet bañal leen déclaré sitting bi ne leen du ma ko nangu parce que. foofu ngeen koy defee noonu sphère administrative boobu du ministère agriculture rek moo fa nekk ministère yu bëree fa nekk te lieu bu mucc ayib la am ay matériel ay infrastructure mucc ayib du mën na ngeen def sitting leneen xay euh, mën cee dugg leneen am ji donc duma ma leen nangul sitting bi te ensuite wanu leen ma seen reconnaissance parce que amagu leen di euh, kayit bi wane na syndicat bi seen euh, syndicat bu bu bu ah, bu nguur gi nangu la en tout cas wanee wanuñ ko préfet mais est-ce que yow yow yow si sa connaissance est-ce que am nañ ko ah, xaw ma ci dara laaj nañ leen ko wanewuñ ñu ko wanuñ ñu ko te kuy déposer sitting wala marche wala kii donc gendarmerie day def enquete si yow gendarmerie enquête na si ñoom ba jox préfet. enquête bi boobu. si loolu la préfet sukkandiku ne duma leen nangul seen sitting parce que amu leen reconnaissance juridique mu leen mënu leen ko defee foofu parce que du ministère agriculture. waaw mais mais mais, mais Pape Malick euh, bi tamit bi mu déggee sitting boobu ak grève bi euh, waroon na leen a woo ndax moom moo leen jaboote woo leen waxtaan ak ñoom. mais ñi ngi leen di oo oh, ñi ngi leen di waxtaan ñi ngi waxtaan ak ñoom. tey jii <laughs> am na rencontre sax boo xam ne programme nañ ko ajjuma bii di ñëw pour waxtaan ak ñoom wax leen leen fii la dossier bi toll. ñu ngi wut ay information dossier bi daal mën naa wax na jógee na ministère moom de l' agriculture. li liñ ci waroon def nañ ko si beneen fànn tamit. parce que ñoom liñ doon réclamer du wàllu payor kese. te payor gi ñun yoruñ ko. mais am na leneen lu doon laaj aussi loo xam ne si suñu wàll la ñun. mooy nañ yokk nañ defaraat euh, jumtukaay yi seen liggéeyukaay yi dafay yàgg baaxatul donc nañ ko tabaxalaat yeesalaat ko. ñu jëndal leen ay oto ay moto pour direction régionale yi ak service service yi ñuy def ay réunion directeur def réunion ak ñoom loolu aussi ak enquête agricole nañ leen ko jox si juróom-ñetti poñ la woon. juróom-ñaar yëpp d' accord nañ ci te ñoom xam nañ ne d' nañ parce que def nañ ko PV. ba am nañ ko juróom-ñaar yëpp d' accord nañ ci mooy oto yi ministre mi ngi góorlu am na oto yu mu jox temps yi ay DRDR ak ay SDDR. mais si ay projets yu jeex la ko jëlee parce que kenn mënatul jënd oto léegi actuellement ñu toll président daal dafa jël ñaari décret mm-hmm. benn décret bu njëkk bu mu njëkk ba mooyoon donc bu ñu jëndati oto si xaalisu nguur gi mm-hmm. deuxième mooy décret bu bees bu mu génnee di wax lan mooy véhicule de fonction véhicule d'utilité de service et cetera loolu mooy wane na mënu pour ñu jënd oto léegi dafa am fu muy jaar loolu nag ba ko professeur Moussa Baldé xamee dafa jël ay projets yoo xam ne jeex nañ comme PAFA comme Papil et cetera mu jël oto yooyu joxaat ko suñ chef de service yi départementaux yi ak régionaux yi tabax yi nga xam ne projet yi bàyyi woon nañ ko mu jël tabax yooyu gi joxaat ko DRDR yi soo demee maatam tabax bi DRDR bi nekk Proval Papil moo ko fa bàyyi nga dem Kédougou noonu oto soo demee Saraya jox nañ ko oto boo xam ne Pafa moo ko jox nga dem Matam jox nañ ko oto nga dem naa jox nañ ko oto nga dem Foundiougne jox nañ ko oto sans compter donc loolu tamit ministère bi góorgóorlu nañ te loolu ñoom xam nañ ko dañ ko wax. d'accord yow daal euh, jàpp nga ne liggéeykat yi nekk ci ministère de l'agriculture ñoo ngi ci condition yoo xamante ni dina leen permettre ñu def seen liggéey correctement. actuellement daal euh, ñi ngi ci ay conditions yoo xam ne mënuñ wax ne condition yu mucc ayib la mais ñun ñu ngi góorgóorlu ak ñoom liñ leen di ñaan daal mooy ñu bàyyi liñ jàpp ñëw liggéey si xam ne ñu ñun ak ñoom ñoo sumb affaire bi. li ñu ci xam rek danañ leen wax fii la dossier bi toll. jërëjëf euh, Pape Malick Ndao euh, mbokk yi moom la ñu invité tey ci euh, émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM Pape Malick léegi tey émission bi jeex mais mënuñoo ñàkk wax ci li nga xam ne moom mooy am na ay ferme loo xamante ni toll na si 443 ferme agricole ferme agricole yooyu lan mooy lan mooy njëriñ ak lan mooy importance bi ak tamit ndax daj na daj na Sénégal gi yëpp waaw xam nga ferme yooyu te yàlla dafa def euh, si ministère bi yàlla jaalale ko si li ñuy wax agence bi ñuy wax ANIDA. Mhm. ANIDA di ko réaliser si zone yi nga xam ne des zone d' intervention la li nga wax 443 ferme yooyu def na ko ferme yooyu tey jii dana créer ay emploi comme si mbirum xëy lañ nekk surtout xëyu ndaw yi mhm. emploi direct yi nga xam ne créer na ko rek mhm. dana mat 120 000 ak plus de mille cinq 2500 emplois donc indirect waaw loolu vraiment lu am solo la te dañuy ñëw jàppale gox bi donc wutal leen lu ñuy bayee jox leen matériel muy tracteur wala matériel goutte à goutte jàppale leen ci mbarum mbayum ndër mi ak yeneen xeetu meññeef yoo xam ne dañ koy def wutal leen point d'eau parce que dana fa danañ fa def forage wala ñu def fa euh, teen boo xam ne donc danañ am ndox di ci liggéey di jaay am seen i koppar di mën a ba pare nag amal ndaw ñu xëy parce que wax dëgg yàlla euh, si ay hectares yu bëri lay nekk. Mhm. te si ay gox goxaat lañ koy defee. donc loolu rek mi ngi ñi ngi participer waale si xëyu xale yi léegi nag am na ci euh, yoo xam ne aussi du ANIDA moo koy def mais ANIDA na ci lëkkaloo ak yeneen projet yoo xam ne ñi ngi suñ ñi ngi suñ ministère lu mel ni Proval CV. mooy projet de valorisation des eaux moom aussi dana créer ay emploi donc dana defar ay ay ay ferme mais aussi lu mel ni Agri Jeunes mhm. Agri Jeunes aussi projet bu bees la boo xam ne FIDA moo ñu ciy jàppale cinq ans la dana nekk ci région huit régions donc yooyu aussi ndaw ñi lay jàppale. Ah, mais fan yi ñu génn euh, am na benn euh, ferme bu ngeen inauguré mooy euh, ferme agricole bu Taïf bi. tey ndax est-ce que am na yeneen ferme yoo xamante ni instant bi yéen a ngi ci. Euh, maanaam pour waaj koy inauguré wala wala fan ngeen ci toll. waaw am na ci yoo xam ne déjà inauguré nañ ko bu tayef bi moo ci mujj ah am na ci ferme yu nekk en Casamance am na ci yeneen yoo xam ne aussi vraiment ñu ko danañ ko inauguré si ay fan yu néew euh, jàpp ma liste bi fii mais mën naa wax ne daal ferme yooyu sax ñi ñi ci gën a jàppale mooy Union européenne ak euh, la République d'Espagne ak Italie parce que vraiment fonds yi nga xam ne euh, ñoo ko ci dugal si ñetti fonds yooyu la génnee muy Union européenne République d'Italie ak République d'Espagne te ferme yooyu vraiment ay jumtukaay yu am solo la dana am des fois mu am pisciculture fu ñuy béyeem njën njën mi des fois mu am mbayum ndër mi si biir ah, des fois aussi mu am élevage si biir am aussi way euh, mm, euh, élevage mouton et tout man par exemple visite naa la ferme de de de Taïba Niassène loolu man dem naa fa parce que préfet département laa woon. Mhm. préfet département bu Nioro. Mhm. visite nañ ko avec le ministre de la jeunesse Anida moo ko réaliser comme ni mu réalisé naa naataange yu bëri dafa am ñaari type de ferme nag ferme tàng am aussi ferme villageoise village villageoise yi dañuy boole ci euh, biir village bi ay kuréelu jeunes. ñu boole leen defal leen benn ferme pour ñu mën ci am xëy di jaay di def seen seeni seen accord euh, poos. d'accord euh, ñoo ngi lay sant euh, di la gërëm yaakaar naa ne waxtu wi jeex na léegi lan nga bëggoon wax rek loo xamante ni laaju ñu la ko. waaw li ma bëggoon dolli rek mooy ministère de l'agriculture l'équipement rural bi nga xam ne man maay secteur général bi si ndigalu ministre Moussa balde añ ñi ngi góor góorlu bu baax. Euh, di remercier le président de la république na ministre Moussa Baldé sax moo ko wax moo koy war a wax si li nga xam ne mi ngi ñuy gën a jàppale ñi ñi mettre en œuvre politique agricole bi ren ministre wax na ko suñu budget bàyyiwaat na ko encore 60 milliards mooy budget pour dem campagne agricole bàyyiwaat na ko 60 milliards defar nañ suñu programme agricole xam nañ ñaata la ñu war a yokk si en la ñu war a jënd si engrais ñaata la ñu a jënd si semence semence yu nekk ak si matériel agricole bi tamit ñaata la ba le président validé na ko noonu la ñuy demee campagne ñu ngi ñaanaat rek daaw li ñu yàlla may mooyaat ñu ko taw bu barke te law donc pour ñu mën a génnaat si nawet bi am nawet bu mucc ay amaat ay chiffres record surtout spéculation yëpp ñu ñaanaat tamit suñu euh, mbokk yi muy waa Sintas am na suñuy rakk lañ suñuy mag suñuy jarbaat des fois ñu dellusiwaat seen xel xam ne ndar xëyul rek sotti liñ yaakaar ñoom si yeneen ministères yi foog ne am nañ ko fekk euh, foog ne suñ ministère la amul peut-être yaakaar googu mën na mën na bañ a nekk parce que ñoom dañuy comparer wax na soo demee tel ministère am nañ ko dem tel am nañ ko mais foog naa ne lépp lu ci mënta nekk daal euh, ñu yelloo ko ministre bi dana ko dox wax ko fi mu ko war a waxee léegi nag ñi ko war a décider ñoo koy décider loolu daal lañ yaakaar ne noonu la war a demee te ñoom noonu lañ ko war a xamee nañ xam ne daal Moussa Baldé taxaw na ci bu baax ay ñoñam aussi taxaw nañ ci ñu ngi leen ñaan daal ñu bàyyi grève bi ñëw kontine ñu liggéey bi jërëjëf euh, Pape Malick euh, Ndaw yow yaa nekk secrétaire général bu ministère de l' agriculture et de l' équipement rural euh, yow yaa nekkoon suñu gan émission pencum réew mi muy am ci rajo réew mi FM samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak sekk moom Seck du Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi mbokki yi ngeen jëf jàmm ak jàmm.